je pense que c'est un précédent dangereux pour nous soulever au Sénégal il faut que nous euh, je pense que nous on a confiance en lui parce que il a dit très clairement qu'il renoncé na demande de renonciation depuis très fort longtemps Nous réaffirmer encore au niveau de l'ambassade du consulat de France au Qatar donc je pense que sur la bonne foi sur la compatibilité sur la globalité du renoncement de cette nationalité je pense que les juges peuvent nous dire en bonne foi cest la globalité de la du du du dossier ndax à la fin euh, dans la constitution sénégalaise il faut être exclusivement sénégalais avec un délai s'il n'y a pas un délai qui dit que cette personne doit être exclusivement sénégalais je pense qu'avant le 20 officiel que nous déclarer les candidatures Karim Wade était bel et bien dans le processus avec sa nationalité exclusivement sénégalais. Euh, Bête ñu aussi hein, il faut pas il faut avoir le courage de le dire parce qu'on ne s'y attendait pas mais que vraiment nous sommes responsable nous jël nañ ko philosophie aussi def li nga xam mooy suñu cër moy dem djema wax ak euh, sénégalais yi ak suñu militants dalal leen defal leen ba paré concentré aussi si li nga xam ne moom la ñu yoon may ñun gëm nañu on a un document béton un dossier béton kon donc gis nañ né c'est de l'arbitraire de l'injustice encore une fois bo xamanteni suñu frère le président Karim Meïssa Wade mu ngi koy subir depuis bobu légui depuis 2012 avec ce régime dictatorial de Macky Sall et dañu japp né il est aujourd'hui arrivé à terme que lolu mu cesser. C'est ce que tay ji ci lañ nek waaw parce qu'il faut avoir toujours la la bonne foi gëm dañu bu rek mais na sori amul problème l'essentiel ñun nañ def li ñu def bu ñu ba xamanteni tamit li la yoon waxat ñu taxawat ko baisser les bras sur ces élections tay muy A ou par B dinañu bokk ci élection yi te dañu gëm ne té nous gëm né suñu bokk ñu def différence élection bu a baax ci rabbi à l'écoute de notre leader de la grande coalition mais surtout de notre de notre parti moy ñu déglu parce que actuellement lépp ñu ngi koy liggéey pour xol yeen contre offensive lañuy ñuy pour mëna ne veux je pas dire seulement le peuple sénégalais mais ce régime dictatorial bi nga xamanté tay wa leer na encore une fois au sénégalais que c'est pas de la de la de la démocratie au Sénégal et loolu moo gën a tax tey jii ni mu nekk nii ñuy wax militant yëpp ak responsable diaspora bi nañu taxaw ñoom ñëpp xaar mot d'ordre bi ndax le frère président Karim Meïssa Wade sera bel et bientôt euh, bel et bien excusez-moi au Sénégal su boobaa lui-même il va mener ce combat comme nous l'avons ko face à ce régime dictatorial bi nga depuis douze depuis bientôt douze ans mi ngi bafoué ses droits au-delà de de lui-même mais de beaucoup de Sénégalais yi nga xam ne ngi dund l'injustice dans ce pays.